yaa xayraka fi taysiri aw Tafsir TV ñu ngi ànd ak imaam Ousseynou Dia imaam Ousseynou Dia mi nga xam ne macha allah tey dox na rôle boo xam ne bu am solo ci kàccot ak ay doomam ndax tey mën nañu wax ne ginnaaw yàlla lu bari xew na ci biir kër gi te ci moom la sosoo xamee gi ak mbokk yi ñi nga xam ne ni gis nañu gisee daje gi ñuy daje fii tey mën nañu wax ne lépp ci loxoom la ko yàlla jaarale kon nag loolu sant yàlla la nekk na lu xam ne vraiment du lu ndaw parce que borom bi subhaanahu wa taala dafa ne woon kat dama leen bind pour ngeen xamante kon xamante googu nag ak taaruf li ci mën a soqee ko dafa bari tax na ba tey ñi nga xam ne mosuñu gisante tey gisante nañ ñi nga xam ne mosuñu xamante tey xamante nañ ñi nga xam ne gëj nañu gise tamit daje nañu lépp ci loxoom la ko yàlla jaarale macha allah léegi nag tey euh, mun nañu wax ne moom mu ngi basé wu Diourbel waaye ñëw na fii Ndakaaru ci Malika ci bés bi nga xam ne suñu mbokk suñu nijaay di xarit ci moom di oustaz Saloum Diané ñi giñ ko xam ni kër gi ci najaatu shabab moo organisé bés bi tey di guddi gu sell gu xam ne ñu ngi ko jagleel Seydina Ahmad Tijaani radiallahu taala anhu ñuy war a màggal maqaam boobu ñuy wax alkatmiya euh, léegi nag waa Kactu TV jóge nañ fu nekk nag ñëw ñi nga xam ne mënuñu ñëw tamit euh, ñi ngi woote ñi ngi envoyé ay message kii nga xam naa ne tey moom la yàlla dogal mooy président Kactu TV te moom mooy créateur bi euh, moom la ñu jàkkaarloo mooy imam Ousseynou Dia imam ñu ngi lay nuyu waaleykum wa rahmatullah imaam gis nañu tey euh, macha allah xale nga ma li ñuy wax ne xale bu loxoom si te mën na bokk ak ay mag hmm. am na lu xam ne yàlla dogal na ko tey jii ci kàccut hmm. ba liggéey liggéey yu rëy di ci soqi ko hmm. ay dimbalante ak ñi nga xam ne dañoo néew doole ak ñi nga xam ne dañoo soxla ba ci sëriñ su mag si sax tey euh, kàccut ñu ngi liggéey lu am am solo ci ñoom te lépp yàlla mu ko jaarale ci sa loxo moo bëggoon laaj rek euh, balaa ñuy jóg balaa ñuy dugg ci li nga xam ne tey moo ñu tax a jóg muy gàmm gi xalaat boobu nan lañ nan la ñëwee ci yéen euh, alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala asrafi al anbiyaa'i wal mursalin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din bokki julli di tedd yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel bu baax waaye di leen ñaanal yàlla may daam toob ñu ngi lay fay nuyoo di la ziyaar yi ndokkeel la jaajëfal la ci taxawaay bu am solo yi ak liggéey boo am solo bi nga ñëw ci barabu tedd bi tey tabaarakallaahu di ko fi liggéey ñu ngi ci bu baax di la ñaanal yàlla yal na yàlla fay la yiw yal na yàlla barkeel yëpp bi jaay bii naa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ngi lay yóbbanti nuyoo ba tey ci sunu baay Mbaye Mango Top tabaarakallaahu nekk kenn ci Kathie TV moom itam comme ni nga ko waxee taxaw ci taxawaay bu am solo ñu ngi lay yóbbanti nuyoo ci moom tabaarakallaahu nee nga dina ñëw ci kanam waaye yàkkamti nañ ko gis lool moom itam macha allah eh, ñi ngi nuyu tabaarakallaahu mboolem membre Kathie TV fu ñu mën a nekk ci àddina ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ndokkee leen ci bis bu tedd bi tabaarakallaahu waaye ñaanal leen yàlla eh, jërëjëf Baye Dame Top ci sa laaj ba am solo bi mu mel ni yaa ngi ñuy laaj tabaarakallaahu ci li ñu bokk ñun ñëpp di ci def taxawaay yu ama am solo tabaarakallaahu muy groupe whatsapp bu man boobu ñuy ubbi muy Kàccu TV nga xam ne tabaarakallaahu kenn dutut ko laajte ci kàccot ndaw ñi ak mag ñi ñëpp tabaarakallaahu xam nañu ko ci taxawaay bu am solo boo xam ne Kàccu TV ma nga ca kàccot bàyyi daam toog tabaarakallaa xalaat boobu ni mu ñëwee mooy dañoo gis ne jamono dox na euh, te it ñu gis ne kàccoot dëkk la boo xam ne bu mag a mag la gis nañ ne it dëkk la boo xam ne bu njaboote la njaboot gi tasaaroo nañ ci biir réew mi tabaarakallaa ak ci bitimi réew ñu gis ne léegi jamono dox na ba wasa léegi mën naa boole ay nit luy soriwante soriwante tabaarakallaa ñuy déggante di xamante waaye di gisante waaye di jural njëriñ tabaarakallaa seen dëkk loolu moo taxoon ni sabab guru boobu di Kàccu TV bi ñu koy wubbee li ñu ci calculé woon mooy gis nañ ne Kàccur dëkk bu mag la waaye dëkk la boo xam ne ñi baree bari dañoo néew doole léegi-léegi nga gis nit tabaarakallaahu mu tawat tawat goo xam ne bu métti métti du am lu mu mu nekk lu métti métti ci moom léegi-léegi gis ci dëkk bi ay barab yoo xam ne dañuy soxla tabaarakallaahu ku ko defar wala ko ko yeesal waaye muy nekk loo xam ne lu jafe-jafe la ñi gis ne jamono ni mu doxee nag suñu boolee suñu doolee dana danañu dimbale ba comme moom euh, cotisation yi nga gis ci Kàccu Tif weer wu jot fu doomu kàccoon nekk kenn ku nekk di génne dara ci sa gën ñu koy dajale lépp lu ñu bëgg def ci kàccoon mën nañ koy def te lu nekk coono loolu daal bokk na ci li nga xam ne moo sababoon ñu ubbi groupe ba beneen ba it mooy li nga xam ne feeñ na fii tey tabaarakalaaw mooy ñi xamante waaw ni ma koy faral di waxee ay nit tabaarakalaaw pour xamante dafa am solo wax nga ko léegi yàlla daf ñuy bind pour ñu ndax bu ñu xamantee rek amalante njëriñ di demalante di dikkalante kon li sax boon groupe mooy doomu kàccoor kon dañoo tasaaroo ca àdduna bi te ñi ci biir dëkk ba rek xamantewuñu rawatina ñi nga xam ne nekkuñ ci dëkk ba ñu ne xëy suñu defee lii nit ñi danañu xamante bu baax waaye danañu boole seen doole ba lépp lu dëkk ba soxla woon suñ ci jubloo yàlla sottal lool te yàlla mi ngi ciy dimbali ba ñu ngi ci am résultat yoo xam ne yu am am solo la may la. Mhm. macha allah waaw loolu nga wax euh, nekk lu am solo te li ma koy gën a dëggalee. Mhm. Euh, benn bis euh, dama am fu ma demoon. guddee bi ma bi ma wàccee. Mhm. dama wàcc ci oto dox rek. benn taxi gaare sama wet. bi mu wàccee bi mu gaaree sama wet. xool ma ne ma yow yow tuddloo Baye ma ne ko ah mu ne ma nga dëkk kàccoot ma ne ko waaw. mënu ma yéegal mën na ko déet sëñ bi yow yaa ngi may nax di mën na ma man maa ngi tudd Alaaji Siñaan mm-hmm. dëkk Kàcco waaw ci groupe bi laa la xamee mm-hmm. yéegal ñu dem ma ne ko déet yow yaa ngi ci liggéey mënuma déet yóbbu noonu laa yéegee mu yóbbu ba sama kër ba sama place ma ne ko fii mooy sama place kon loolu yàlla dogal na tey ji bu ma ko mënee am tamit yàlla ak euh, groupe bi nga xam ne ci la ñuy jaar moo ñu boole ba ñu xamante xamante ko te mënoon na ñàkk kon loolu benn la ci résultat yi euh, ñaareel ba tegu ji tey doomu kàccot moo aye ñëw fii ci Ndakaaru hmm. ci Malika hmm. ci gox boo xam ne mën nañu wax ne goxu Imaamu Laay Mahdi la hmm. euh, muy gox bu xam ne macha allah goxu li diine la goxu lislaam la mu ñëw na samp fi di fi yëngu ci lépp lu jëm ci diine ak euh, ci tariqatu Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu muy suñu nijaay Ousmane euh, Saloum Diané tey nag mais jigéen Jurbel yow tamit ñëw fekk la si bis boobu bu bëgg a laaj rek bisu tey bi yow noo ko dundee waaw bisu tey bi de bàyyi daam toog xanaa am ci mbégte mu rëy rëy mm-hmm. yàlla dafa dogal comme eh, li may faral di wax ñun ñu bëree bëri dañoo réerante wuñ mm-hmm. dañoo réerante woon Cheikh Saloum Diané xamoon nañ ko mm-hmm. waaye taxutoon ñu am benn relation xamuñu woon ni liggéey bu rëy bii moom lay liggéey fii ci Malick yàlla dogal bi mu dugg see ci Kathie TV moom itam ba bisu daaw bi jot mu daal di ko yëgle ba bokk yi ñu ci bëree bëri ñoo ñoom Oustaz Assane ak ñoom Cheikh Ibrahima Dia Thiaro tabarakallahu ñu bëri ñëwoon ci daaw teew ci ñun ñu xamoon yéenee ñëw yàlla dogalu ko moo tax ren nu ñu mën a def lu yitte yi bëri bëri foog ñu ñëw tabarakallahu ànd ceeg moom waaye bi bi ñu ñëwee eh, fekk la yow ba gis la tabarakallahu loolu rek doy na mbég ci ñun dañooy bég torop torop rawatina nag jotaay bu am solo bi nga xam ne jot naa jàll ci suba gi nekk jotaay boo xam ne façon kilifa yu ne tabaarakallaa ñi ngi ñëw teew boo ñëwee ba fii daal da ngay xam ne oustaz Saloum Diané liggéey bu rëy rëy rëy moom la liggéey fii ci Malick mm-hmm. bi ñu ñëwee fekk leen fii am nañ ci mbégte bu baax a baax a baax Cheikh Ibrahima Dia Thiaroye mi ngi fi mm-hmm. alaaji Mbay Ndaw mi ngi fi mm-hmm. eh, tabaarakallaa oustaz Ibrahima Ndaw moom it eh, mi ngi fi. nee nga ma bàyyi màngoor kon ngi ñëw ñi ne ñëpp amoon nañu yéene ñëw waaye yàlla dogal comme dafa sës ci màggal gi. Mm-hmm. ñenn ñi dem Touba neen ñi nekk ci ay xat-xat moo tax a ñëwuñu waaye fi ñu ñëwee fii daal tey. Mm-hmm. am nañu fi mbégte moo xam ne mu rëy rëy la. Mm-hmm. kon daal lii sag la ci kàccoor. waaw li sag la ci kàcceel sag bu rëy rëy rëy mhm. sag bu rëy rëy la ci kàcceel boo xam ne nii wax dëgg yàlla na waa Malika na ko yàlla wërsëgal mhm. waaye lii Oustaz Saloum Diané di def fii mhm. buñ ko mënoon a am ci kàcce di jël nag dëgg yàlla macha allah konte ci benn lay tàmbale waaw kon ginnaaw loolu Oustaz sa kàddu gu mujj boo doon ñaax léegi waa Kàccu TV ak euh, yitte yi nga xam ne mun nga bëgg ñu ñu ñu yokk tey ji yan kàddu nga am yoo xam ne bëgg nga leen euh, waa Kàccu TV de Oustaz bala ñu leen di ñaax dañ leen di sant gërëm leen bu baax a baax a baax ñaanal leen yàlla bu baax mm-hmm. ci taxawaay bu am solo boo xam ne ñi ngi ko taxaw ndax ñun li ñu mën mooy ubbi groupe bi woote mm-hmm. ba ñu wootee bu ñu kenn wuy si wutoon bu ñu dawalee benn weer ñaar dañ koy tëj dem ci yeneen ñitti mm-hmm. konoon lii yëpp dox ni ma koy faral di waxee ñu bëri bu ñu tuddee Kacir TV dañu may tudd waaye man awma solo ndax ñoom ñoo am solo ndax ñoom ñoo wuy si ba noppi di jël seen temps di ci def di jël seen alal di ci def kon groupe bi buy dox ba ñuy def dara rek eh, ñoom mu nekk loo xam ne lu am am solo la tey man boo xooleen lépp lu ñu jël di ko joxe ci barab rek boo ci génnee 1000 francs bu Ousseynou joxe daanaka dara du ci des mhm. li ci des yëpp waa groupe bi ñoom ñoo ko def kon ñoom dañ leen di sant bu baax gërëm leen waaye ñaanal yàlla ndax seen taxawaay am na solo comme relation yi nii mu demee wax dëgg yàlla mhm. mbir la moo xam ne moo am am solo ndax mënoon nañ ko woote te nit ñi duñu ci wuusi mhm. yaa ngi ñuy jógee Kër Massar ko yëgalee rek da nga ko wax bu taxawé yépp te noonu nga def te mu ñëw fekk na ngeen di sa matériel bi yépp teg ko fi tabarakallahu te laajoo ko ci dërëm joxul ci dërëm nga jël yépp di ko def te yàlla tax loolu lu rëy rëy rëy mboolem ñi nga xam ne ñëw nañ fii ñëw teew te yàlla tax te bu njëkk daanu demee nii gannaaw yàlla kàccu tiifi moo tax nit ñi xamantewaat nit ñi soppantewaat di demalante demalante boo xam bu rafet bii def loolu am am solo ñu ngi ciy gërëm bu baax a baax waa kàccu tiifi su ko defee kàddu yi fàttali ak ñaax yi nga xam ne moom la ñuy ko ci waa kàccu yépp Euh, ki démb nag am na ku ma ciy waxtaan ne ko xam naa ne du ñàkk sax ci fan yi di ñëw mhm. ñu xool dimanche boo xam ne dimanche wu réunion lañ koy def réunion boo xam ne waa groupe bi yëpp mhm. su gi ak ngoon bi yëpp ñu def ko loo xam ne dañuy def réunion waxtaan ñaaxantiwaat bu baax a baax ndax suñ bëgg-bëgg muy groupe bi ñu yokk ko mu yaatu torop ndax gis nañu doomu kàcco di bari nañ torop te li nekk ci biir groupe bi tuuti na ak ñun lool ak ñu doomu tàcc di toll te comme dafa nekk groupe boo xam ne ñi ci nekk yàlla li ñuy def yàlla dong moo tax ñu koy def mm-hmm. borom xam-xam yi mel ni Oustaz Saloum Diagne di fi jàngale yàlla rek tax ñuy jàngale joxuñ leen dara mm-hmm. mboolem ñi fi nekk di yëkkati seen xaalis di dugal ci cotisation yi pour ñuy delloo ko ci kàccoor yàlla rek moo tax ñu koy def su ko defee gis nañu doomu kàccoor yu bëri ñu ngi ci biti su dee wàllu whatsapp la ñu bëree bëri ñu ngi yor whatsapp ay gisaguñ leen ci kàccoor TV te yaakaar naa ne bëgg bu ñu bëgg kàccoor ñun ñooñu war nañoo bëgg kàccoor bëgg gu toll noonu wala ñu bëgg kàccoor bëgg gu ko ëpp jamono jii daal su ma doon am lu may ñaax waa kàccoor TV yi wala waa kàccoor mooy doomi kàccoor yëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi fu nit mën a nekk mu wuyus ñi ci kàccoor TV ba nga xam ne weer wu dee lu néew néew danañ dajale deux cent mille deux cent cinquante mille mhm. yaakaar naa su nit ñi bëri xaalis bi di toll noonu di bëri rek mhm. balaa diir bu gàtt rek Kàccur TV mën naa def ci Kàccur liggéey boo xam ne bu réy réy la mhm. lii sama bëgg-bëgg mooy doomu Kàccur yi fu ñu mën a nekk ci àddina ñi ne ci biir réew mi ak ñi ne ci bitim réew ñëpp ñu wuy suñu ci Kàccur TV ñu jël Kàccur teg ko ci sunu kanam comme ni ma koy faral dem wax comme yàlla moo ñu ko boole te mënuñ koo séddoo te la koy jëmale kanam yi ci lii ñuy def mbir la moo xam ne mën naa kanam su ko defee ma amee lu may ñaaxee daal mooy maa ngi woo doomu kàccut yëpp fu ñu mën a nekk ci àddina mhm. ñu nekk kàccut ci biir dëkk ba ñu ne ci biti ñëpp ñu ngi leen di woo góor ñi ak jigéen ñi ñëpp ñu wuy suñu ci kàccu tiif mhm. ñi ànd liggéey liggéey boo xam ne kàccut rek lay jëriñ ci mhm. eh, oustaz waaw kay jërëjëf kon xam naa li ñuy def rek mooy di dolli ñaanal ki nga xam ne mooy sa sa seexandoor di Oustaz Assane euh, xat-xat yi mu nekk yàlla na ko ci yàlla génne te féexal ko te yàlla na nekk tam yéegukaay maqaama ci moom Oustaz ginnaaw loolu sa kàddu yu mujj euh, sama kàddu yu mujj de bàyyi daam topp mooy sant la gërëm la rafetlu lool sa teewaat ci jataay bi ak liggéey bu rëy bi nga xam ne moom nga fi liggéey tey ak njaboot gi nga àndal soo ñëwoon yow kese kese doy na tabaarakallaahu nga ànd ak sa ñaari doom ànd ak sa jarbaat gis naa ne sax moom moo nekk ci caméra bu mag bi tabaarakallaahu doon ci liggéey liggéey bu am solo ci suba gi kon yow ñu ngi lay sant bu baax gërëm la su ko defee ñi ngi gërëm membre yi Kathie TV yëpp nag ndax wóor nañu ne fii ñu ñëw tey ñëpp ñoo amoon yéene ñëw fi waaye xat-xat yi ak magal gi mu dajal tax ñenn ñi tabaarakallaahu dem Touba ñenn ñu nekk ci xat-xat yi ñun ñi fi teew nag tabaarakallaahu ñoo teewal ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci yeneen nit ñi ñëpp tabarakallahu ñun ñoo leen mhm. teewal waaye yow yaa leen teewal waaye cheikh ibrahima dia tabarakallahu mhm. teewal na leen mhm. kon ñëpp ñi ngi leen ci sart ñaanal leen yàlla oustaz salum diagne mi nga xam mo moo woote bis bi tey moom it ngi koy ndokkeel bu baax ci bis bi di ko ñaanal yàlla bu baax a baax a di ko xamal ne waa kàcc tifi yëpp sant nañu ko gërëm nañu ko ñi ngi koy e ñaanal yàlla ci taxawaay bu am solo mi nga xam ne mi ngi ko taxaw ci kër gi kenn ku nekk xam na ne lu métti métti la yombul rawatina njàngale moo xam ne bët bu set nga koy def fajar bu jot mu yeewu jël téléphone am tabaarakalaaw di ñu jàngal jàngale yoo xam ne yoo ma am solo la mboolem ñi jàng mi ngi leen di fàttali li ñu jàngoon waaye ñi jàngul mi ngi leen di jàngaloo xam ne xamuñu ko mu nekk liggéey boo xam ne bu rëy rëy kon moom ñun dañu fay ñëw tey tabaarakalaaw fay si ko bor waaye lebal si wuñu ko ndax kenn ku nekk ci ñun lebal na la loo xam ne mënoo ko ko fay kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla barkeel ko te barkeel njaboot bi bisam bi yàlla na dem bi naa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ngi lay jaajëfal jaajëfal sax saanum jaan jaajëfal mboolem mm-hmm. di leen ñaanal yàlla ñu ngi ñaan daal yàlla mm-hmm. doomu Kaccu di fuñ mën a nekk ci àddina yàlla na yàlla defal leen jàmm ak tawfiq jaay na bi naa Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasalaamaaleykum وعليكم السلام ورحمة الله درجة فيها إمام